orange lañ ko may ak 2000 président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko di génn fi nga xamante ne moo di jannatu di génn fi nga xamante ni moo di jannatu ma'wa jannatu bu Cheikh Saliou jannatu bu Serigne Béthio jannatu bu suñu sang bi Serigne Saliou Mbacké ki nga xamante ne usmaan da koo jël Ousmane da koo jël def ko référence Ousmane da koo jël ni moom rek moom kese moom lay jël ci référence Ousmane a ngi noonu Ousmane a ngi noonu bëggut a génn fii malgré que nit ñi bëri nañ macha allah mais a génn fii dëgg te <laughs> génn fi nit ñi bari nañu ñoo ngi ci périmètre Touba dañuy ormal dëkk bi donte li am nii li ci dara waaye gëm naa ni gëm naa ni sëñ bi dina ko nangu gëm naa ni sëñ bi dina ko comprendre ndax lépp si cofeel la si cofeel président Ousmane Sonko tey ñëwoon fii nii ci Touba. aksi dem ziar xalif général des Baye dem ba këram saafonteeg moom nuyonteeg moom jokkalanteeg moom askanu Baye Fall gi yëpp nangu askanu Baye Fall gi yëpp sargal ko président Ousmane Sonko jóge foofu dem Touba la grande mosquée de Touba le symbole de notre souveraineté le symbole de notre dignité retrouvée, la grande mosquée de Touba, bâtie sous la demande du grand Cheikhoul Khadim, l'homme qui incarne la souveraineté, la dignité de l'homme noir, ki nga xamante ne yàllaa ko tànnal boppam Khadimul Mustafa, le serviteur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu julli foofu saafonte ak ki nga xamante ni moo di Serigne Mountakha borom mbégte gi ñu waxtaan ñu waxtaan mu soññ ko ñu waxtaan mu laaya biir ko ñu waxtaan woon ko ni njaboot gi nga bokk fa ñu jógee ñëw fii ñoo ngi jëm Mbàkke ñoo ngi jëm Mbàkke Mbàkke Bawol Mbàkke Bawol le président Ousmane Sonko mi ngi ñëw mi ngi ñëw waaw li xew fii Touba lu exceptionnel waaye on va essayer de de se retenir un peu dañuy am tuuti retien ndax ñooñu Touba waaw ñooñu Touba moo tax il faut ñu am tuuti retien waaye lii mës na am xool yi xool askan bi liñ ci toppee di daw sécurité bi accéléré na accéléré na waaye gëm lu ñu accéléré accéléré xale yi dinañ leen topp daw ba Mbacké Touba Mbacké on arrive Mbacké on arrive yéen a ngi seen noonu le véhicule du président Ousmane Sonko di fàttali Cheikh Tidiane Dièye Cheikh Tidiane Youm ak ki nga xamante ni moo di Déthié Fall président Malick Gakou l'honorable député Ahmed Aïdara Yewwi Askan Wi la Yewwi Askan Wi la mi ngi noonu Sonko bëri doole xoolal ma soxna yi xoolal ma soxna yi Sonko moo bëri doole ndeysaan mbëggeel du tuut coppeel am solo la bàyyi seen yitte ngir waxtaan ngir saafonte ak président Ousmane Sonko nous sommes toujours à Jannatu Mahwa le fief de Serigne Cheikh Béthio ci borom cant yi ñoo ngi fi Jannatu Mahwa ñu ngi progressé ñu ngi progressé ñu ngi accéléré cadence bi ñu ngi accéléré cadence bi parce que itam dañoo bëgg a génn nga xamante ni moo ci périmètre Touba dem Mbàkke foo xamante ni askan waa ngi xaar waaw góor murit waaw góor waaw góor murit mi ngi noonu ngi noonu ñoo ngi accéléré Touba ñoo ngi ñëw Mbàkke ñoo ngi ñëw Mbàkke ñoo ngi ñëw Mbàkke Bawol ñoo ngi ñëw mi ngi noonu di fàttali le président Ousmane Sonko mi ngi ànd ak nga xamante ne ñoo di ay xaritam mi ngi ànd nga xamante ne mooy waa Yewwi Askan Wi Yewwi Askan Wi noonu mi noonu mi noonu acca acca ñu dem acca ñu dem acca ñu dem acca ñu dem acca ñu dem Mbàkke Mbàkke ñoo ngi ñëw Mbàkke ñoo ngi ñëw président Ousmane Sonko mi ngi ñëw président Ousmane Sonko mi ngi ñëw Baye Fallou askan mi ñu ñëw Baye Fallou Sénégal mi ngi ñëw Baye Fallou askan bi mi ngi ñëw président Ousmane Sonko le don de soi pour la patrie tel qu'enseigné par la doctrine du mouridisme Ousmane Sonko ngi noonu ñoo ngi progressé ñoo ngi progressé aywa aywa eh borom Jakarta bu nu fi jóge waaw Et nous, nous, je rappelle que le convoi est composé de minimum, de minimum quarante véhicules quarante véhicules lu mu ndaw ndaw ndaw ñoo nekk ci convoi bi le bureau politique ñëpp ñëw ñëpp aksi Bassirou Diomaye Birame Souleye El Malick Ndiaye Bala Moussa Dafé borom xam-xam du pexe Amadou Ba le brillant débatteur Ngagne Demba Touré ñoom ñëpp a ngi fi Pastef est là Khadija Maykor Yaay Faalu président Ousmane Sonko Ramirez Maimouna Dieye ñoom ñëpp a ngi fii Maimouna Dieye mi ngi fii ñëpp a ngi fii le bureau politique de PASTEF dans sa majorité waaw ñëpp a ngi fii ñëpp a ngi fii ñëpp a ngi fii ñëpp a ngi bés la boo xamante ne bu am solo la ci li nga xamante ne moom moo di l'histoire politique de Pastef les patriotes Pastef les patriotes Pastef les patriotes au cœur du Bawol mi ngi noonu ñoo ngi jëm Mbàkke ñoo ngi jëm Mbàkke ñoo ngi jëm Mbàkke ñoo ngi jëm Mbàkke ñoo ngi jëm Mbàkke ñoo ngi jëm Mbàkke président Ousmane Sonko yéen a ngi gis xale yi kenn woowul kenn kenn fayul kenn kenn yëgalul kenn kenn xamul itinéraire bi ñu koy génn di daw seen biir di fekk si président Ousmane Sonko mi ngi noonu convoi baa ngi noonu ngeen di découvrir convoi baa ngi noonu ngeen di découvrir nee naa lu mu ndaw ndaw waaw lu mu ndaw ndaw mën naa leen wax ni quarante véhicules ñu ngi ci convoi bi acca ñu dem acca ñu dem acca ñu dem Mbacké mi ngi ñuy xaar Mbacké mi ngi ñuy xaar Mbacké mi ngi ñuy xaar mi ngi noonu on accélère on accélère un peu Mbacké mi ngi ñuy xaar Mbacké mi ngi ñuy xaar Ousmane Sonko askan wi Ousmane Sonko est le leader de Askan Wi usmaan Sonko est le leader de Askan Wi ñoo ngi jëm fi nga xamante ne moom moo di ñoo ngi jëm fi nga xamante ne moo di Mbàkke Mbàkke ñoo ngi ñëw Mbàkke ñoo ngi ñëw Mbàkke ñoo ngi ñëw askanu Mbàkke askanu Bawol taxawaat askanu askanu Mbacké askanu Bawol président Ousmane Sonko nga xamante ne moo di leader Yewwi Askan Wi fekk si loraan ak moom moto yaa noonu moto yaa noonu gaari bañoo ak Mbacké dina xaw a métti waaw comme on laisse des traces. On va continuer un peu notre notre motion. bàyyi ba ci kanam ndax xam naa li unique dans l'histoire politique du Sénégal et à jamais canal de l'histoire du Sénégal président Ousmane Sonko ñoo ngi même si c'est difficilement parce que tey li fi am ci nit li fi nekk ci oto waaye bésu Pastef ba bésu président Ousmane Sonko la bésu Bawol mi ngi noonu yéen internet yi mën ngeen ñu wax su fekkee ni le son est bon on a quelques doutes là-dessus bindal leen ñu rek su son bi comme ça ñu tester un si le son est bon si le son est bon bindal leen ñu ñu xam on a quelques doutes là-dessus si le son est bon merci de nous faire

Thank you. ñoo ngi noonu di génn Touba président Ousmane Sonko ànd ak nous voilà à Mbacké aksi nañu Mbacké aksi nañu Mbacké Mbacké ñi noonu Mbacké ñi noonu Mbacké ñi noonu Mbacké ñi noonu

bay arrière bay arrière bay arrière bay non non bay bay Mbacke ngi noonu Mbacke ngi noonu côté bi loolu dama ngi noonu Mbacké ngi noonu xool leen nit ñi ni ñuy génnee xool leen nit ñi ni ñuy génnee ci koñ yi exceptionnel ma Mbacké ngi noonu président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko dugg na Mbacké président Ousmane Sonko dugg na Mbacké Mbacké ngi ni Mbacké ngi nii Mbacké ngi génn Mbacké ngi génn exceptionnel ngi nii di soog a dugg Mbacké Mbacké ngi noonu comme ni ko gisee président Ousmane Sonko Baye Fallou askan wi Baye Fallou Sénégal Baye Fallou askan wi moo ngi noonu di dugg Mbàkke nit ñaa ngi noonu di daw di daw di ko accueillir regardez cette liesse populaire regardez vacarme extraordinaire xoolal mi ngi noonu fumée boobu ngeen di gis boobu ngeen di gis daa mel ni Mbàkke daa mel ni dans la résistance

xale yaa ngi daw xale amul dispositif amul dara nous sommes libres de circuler dans ce pays-là et on va le faire comme il se doit c'est garanti par la constitution du Sénégal la constitution du Sénégal nous serons embarqués Nous sommes embarqués. C'est un face-à-face tendu. C'est un face-à-face tendu entre le peuple et des quelques éléments qui répondent à des ordres illégaux. À des ordres illégaux. La confrontation La confrontation, le rendez-vous de Mbacké, le président Ousmane Sonko, protégé par un mur humain. Le président Ousmane Sonko est protégé par un mur humain. Le peuple le protège, les jeunes le protègent. Ils enveloppent son véhicule. Le président Ousmane Sonko. ñoo ngi nii amul dispositif amul dara. à un ordre manifestement illégal. Il faut désobéir, avait dit le président Ousmane Sonko. ngi noonu mi ngi noonu di ñuy dem di ñuy jàll di ñuy dem mi ngi noonu ils vont tirer certainement leur premier coup de lacrymogène le face à face entre le peuple et là quelques éléments qui répondent manifestement à un ordre illégal ils répondent à un mani... ils répondent à un ordre manifestement illégal on ira à on sera à on y on y va alma kii bi booy. mi ngi ils ont tiré des lacrymogènes. Ils ont tiré des lacrymogènes sur le véhicule du président Ousmane Sonko. Ils sont en train de gazer le peuple sénégalais. Mais on ne bouge pas. On ne bouge pas. Le président Ousmane Sonko, le véhicule de la presse, est en ligne de mire, en premier front. Le véhicule de la presse, est-ce qu'ils vont charger ce véhicule-là? le président Ousmane Sonko, Malick Gakou et tous les autres, ils sont là, ils ne bougent pas, ils ne bougent pas, on est là, ils ne bougent pas. mi ngi noonu un ordre manifestement illégal, il faut désobéir et le président Ousmane Sonko Ils sont en train d'envoyer aussi des pierres sur le véhicule du président Ousmane Sonko ñoo ngi ñuy sànni ay xeer. ñoo ngi noonu. Ils sont en train de reculer ñi ngi ñuy sànni ay xeer ñi ngi ñuy sànni ay xeer on va avancer on va avancer on va avancer on va il y a des éléments du La gendarmerie est en train de sur la sur la presse ñu ngi ay ñu ngi ay xeer ci presse bi ñu ngi ay xeer ci presse bi. On ira à On sera à On ira à On sera à Mbacké. Le face à face est là. Le face à topp noonu. mi ngi noonu. ñu ngi ñuy xeer ak lacrymogène. mais le dispositif est correct. le dispositif est correct. ñoo ngi noonu. certainement. vont-ils attaquer. vont-ils attaquer. mi noonu. mi ngi voici le dispositif. gendarmerie mi ngi sànni ay xeer. sur le véhicule de la presse. lacrymogène yi itam mais on n'y peut rien. on n'y peut rien on est coincé. Inch'Allah on va essayer d'être au poste. yàlla baax na yàlla baax na ci xare la ñu ne mi ngi noonu mi ngi noonu mi ngi noonu mi ngi Notre véhicule est attaqué. Notre véhicule, le véhicule de la presse. C'est le véhicule de la presse. C'est le véhicule de la presse. Attention. Ya po po po. Oh, ya. mi ngi noonu. waaw maa ngi koy may. mi ngi noonu ils ont gazé le véhicule de la de la presse. ñoo ngi nii toujours au poste non seulement ils ont gazés mais vous l'avez vu dans les images le véhicule est entré en direct en collision mbëkk auto presse bi auto gendarmerie on a quelques blessés ci côté presse bi waaye jàmbaarloo baa ngi continuer mi ngi mi ngi noonu mi ngi noonu le face à face continue on ne bouge pas on ne bouge pas mi ngi noonu beneen côté Mbacké on nous que jeunes yaa ngi foofu on nous signale Mbacké ngi noonu boy nañ ay pneu la gendarmerie ñoo ngi noonu le drapeau du Sénégal qui frotte mi ngi noonu mi ngi noonu saxaar si ngeen seen ci ginnaaw jeune Mbacké ñoo commencé ñoo commencé les affrontements mi ngi noonu mi ngi noonu Mbacké mi ngi nii voici ce qu'a fait Macky boole askan wi ak ñi ñuy fay ba kenn ta a dem ba kenn mënut a dem ñi ngi noonu di ñu sànni ay xeer comme ni ngeen ko gisee ngeen soog dañuy daw. na ngeen soog dañuy daw dañuy jeexal dañuy jeexal. mi noonu j'ai reçu un projectile dañ ma sànni benn projectile moo tax téléphone bi wadd mais on est au poste on est au et on sera au on est au et on sera au poste Touba Mbacké Touba face à face baa ngi noonu Mbacké ma Mbacké ngi noonu mi ngi noonu lii la gouvernement bi créé lii la gouvernement bi lii la gouvernement bi def lii lii la état bi def lii la comme vous le voyez ils ont lancé un projectile direct sur le véhicule du président Ousmane Sonko nuroo naag tentative d'assassinat mi ngi noonu ils ont tiré directement tir tendu sur le véhicule du président Ousmane Sonko ñoo ngi nii xale yaa ngi jàmbaarloo ak ñoom xale yaa ngi jàmbaarloo ak ñoom ñoo ngi noonu ñoo tax ñii noonu on va progresser Mbacké ngi noonu yéen a ngi seen Mbacké ngi noonu

kenn mënuñu tere jëm dem ci Mbàkke mi ngi noonu na yoon mi ngi noonu nañu yoon kenn mënuñu tere dox biir Mbàkke bënn nañu yoon mi ngi noonu on progresse on est à Mbàkke on est à Mbàkke yoon amul police ani lépp loo xamante ne c'est manifestement illégal le véhicule de tête, celui de la sécurité et du président Ousmane Sonko dégagé nañu yoon on avance ñu on sera là où on veut aller à Mbacké saxaar soosu ngeen di seen mooy un peu ce que les jeunes de Mbacké sont en train de faire on nous signale des confrontations un peu partout Cheikh am jël. Tout droit day jàll. Mais noonu on va essayer d'être au C'est assez difficile, mais bon, on est au poste et on sera au poste. On est au poste et on sera au poste. C'est assez difficile. ils nous ont attaqués, ils nous ont gazés. Sécurité bi def liggéeyam benn yoon kenn mënuñu tere doxantu biir Mbàkke yéen a ngi seen saxaar bi Mbàkke en feu saxaar saa ngi noonu Mbàkke en on ira fi ñu ko prévoir fi ñu bëgg a dem mi ngi noonu mi les jeunes sont là les jeunes sont là. toujours aussi déterminés. toujours aussi déterminés. bënn nañu yoon fi ñu jëm liñ fay dem fële saxaar sale ngeen di seen. c'est des patriotes. qui sont en train de défendre leur liberté de manifester. leur liberté, surtout d'expression. Il accompagne le leader, le président Ousmane Sonko. xaala nañu yoon xaala nañu yoon convoi baa ngi noonu leader yëpp a ngi fii leader yëpp a ngi président Ousmane Sonko moo tijji bunt bi mi ngi ci kanam foofu la ñu jëm foofu la ñu jëm le rendez-vous de Mbacké sera maintenu et il aura lieu il a déjà commencé Mbacke Mbacke ngi nii fu ñu neex la jaar fu ñu neex la ñuy teg suñu tànk ndax ay sénégalais doomu askan bi lañu président Ousmane Sonko mi ngi noonu la progression continue avec l'ensemble du pouvoir jàmm rek la ñuy am askan bee ko wax de jàmm rek la ñuy am ci loolu la ñu ne ci jàmm la ñuy dox ci jàmm la ñu ne waaye kenn mënuñu bund xataal mi ngi noonu on sera au point de rendez on sera au point de rendez-vous on sera oto on nous signale li nga xamante ni moo di signalu gaay Walf dañ ko coupé mais lépp a ngi fii les gens continuent de filmer et de donner la bonne information mi ngi noonu dem de mi waaw mi ngi noonu vous imaginez un les conditions mais on s'y était préparé. t wàcc ci suuf ok. mi ngi noonu vingt sept mille 27 000 connectés. Partagez le live et montrez ce qui se passe aujourd'hui à Mbacké. Mbacké ngi nii Mbacké ngi nii bënn nañ Mbacké bënn nañ yoon bënn nañ Mbacké bënn nañu yoon mi ni ma ko waxee rek le rendez-vous de Mbacké aura bel et bien lieu le rendez de Mbacké aura bel bien lieu mi ngi noonu le rendez de Mbacké aura bel bien lieu foofu la ñu jëm ci point de rencontre ba non oh, mi ngi noonu Mbacké ngi nii bënn nañu yoon bënn nañu yoon partagé et le peuple sénégalais africain va voir les dérives yi nga xamante ne mooy yëfu dictateur yëfu dictateur yi fi am attente grave à la liberté de circulation atteinte grave à la liberté d'expression à la liberté de réunion Sénégal ngi nii Sénégal a ngi nii on est un 10 février 2023 même pas en 98 ou bien en 92 wala 82 le chef de l'opposition et la première coalition politique de ce pays-là empêché de tenir un rassemblement loo xamante ni constitution moo mi ngi noonu bënn nañu yoon comme ni ma koy waxee le convoi mi ngi dem malgré les jets de gaz lacrymogène et ñu lancé en tir tendu waaw ñoo ngi noonu ñoo ngi noonu ñoo dem Déthié Fall la ngi noonu Déthié waaw mi ngi noonu fu ñu dem askan bi génn fu ñu dem askan bi génn fu ñu askan bi génn kenn mënu ci dara amul 2000 francs amul bopp 5000 mi ngi noonu askan maa ngi noonu et nous sommes ci sàncaan yi la ñu ne bënd nañu yoon askan bee bëgg président Ousmane Sonko askan bee ko bëgg ku ci sa xol neexul chaque samedi dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi tu toujours mal au cœur parce que c'est un leader qui se laisse pas faire c'est un leader qui est prêt c'est un leader qui est prêt à se sacrifier pour askanam ñoo ngi noonu bënd nañu yoon ñoo ngi noonu bënd nañu yoon xoolal askan bi nu ñu génnee xoolal askan bi nu ñu génnee te fii waruñu fee jaar situation mooñ fi indi askan baa ngi noonu askan baa ngi noonu Baay askan bi la ñuy teertu président Ousmane Sonko Mbacké Mbacké ñoo ngi ñëw Mbacké le rendez-vous ci place buñ ko soxla ci place buñ ko bëggee def dañuy xuus jàll xuus jàll xuus jàll loolu mooy xuus jàll président Ousmane Sonko accompagné des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi ñu ñëw pour wane ni Sénégal dëkku liberté la Sénégal dëkku démocratie la te ñoom dañuy ñëw vraiment c'est triste Et l'histoire retiendra qu'un président qui est mal aimé par son peuple, un président qui a peur de ce peuple-là, utilise les forces publiques pour mater la, le citoyen sénégalais. waaw waw askan bi dina dem de askan bi nga dem de xoolal gars yi ci toppee di daw xoolal niñ ci toppee di daw xoolal niñ ci toppee di daw lii ku ci mën dara mi ngi noonu président Ousmane Sonko kii ku ci mën dara ku bu ñu mënee nañu dugg kër gu lacrymogène mais cet amour du peuple envers le président Ousmane Sonko il est inestimable il est incommensurable il est exceptionnel le peuple jubile le peuple jubile extraordinaire Mbacké ngi noonu Mbacké ngi noonu xoolal xale yi Sonko xanaa kuy xeexal sa askan sa askan kenn jàppale la kuy xeexal sa askan sa askan kenn jàppale si la Sénégal dëkku dëgg la buñ la tooñee ñëpp jàppale la Sénégal a ngi nii le président Ousmane Sonko fii ci biir Mbàkke ci ñoo ngi ci biir Mbàkke lii ku ci mën dara lii ku ci mën dara président Ousmane Sonko xoolal ma lii xoolal ma lii exceptionnel Sonko moo xale yee ko wax du samay wax exceptionnel exceptionnel exceptionnel ce peuple de Mbacké exceptionnel ce peuple du Sénégal ñoo ngi nii ñoo ngi nii lacrymogène bi suñu parfum la waaye bu ñu gisee askan bi génn jox ñu dëgg di yuuxu Sonko ci biir koñ ci biir Mbacké nga xamante ne ñoo ngi ci yoonu dëgg ku ci dee jaayit nga ku ci dee martir nga le président Ousmane Sonko on va compagner on va t'accompagner nit ñaa ngi seen kaw nit ñaa ngi seen kaw terrasse yi exceptionnel yaa ngi noonu xale yaa ngi noonu fay ñu kenn xoolal lii xoolal lii président Ousmane Sonko a Mbacké lii la yàlla def lii la yàlla def lii la yàlla def lii la yàlla def nga tere ko jaar ci tali national bi askan bi accueillir ko seen buntu kër exceptionnel, exceptionnel, exceptionnel. Le président Ousmane Sonko, le président Ousmane Sonko. Mingi nonou, mingi nonou, le rendez-vous de Mbaké a eu lieu. Le rendez-vous de Mbaké a été respecté. Mingi nonou. ñu ngi exercer suñu liberté de circuler librement partout dans ce pays-là le Sénégal que l'on aime le Sénégal sunu Sénégal ñoo ngi noonu askan baa ngi noonu génn président Ousmane Sonko moto yi nañu def ndànk nañu def ndànk compatriotes du Sénégal, d'ici et d'ailleurs, la diaspora du Sénégal des profondeurs, Mingini, votre leader est là, l'homme du peuple est là, celui que le peuple a choisi avant l'heure est là. Nyongi Dogumbake, Didokmbake, visiblement encore, visiblement encore. mi ngi noonu mi ngi noonu mi ngi noonu xale yi waaye ñun nous sommes sur le chemin du martyre le chemin du martyre le président Ousmane Sonko le président Ousmane Sonko le président Ousmane Sonko ngi noonu ngi noonu Bilaay wallaay bilaay wallaay on aime ce peuple on aime ce peuple qui nous le rend on aime ce peuple qui nous le rend comme on vous dit le rendez-vous de Mbacké aura le rendez-vous de Mbacké aura il est déjà là il est déjà là je suis submergé par l'émotion ce peuple ce Sénégalais inconnu ce Sénégalais lambda ce Sénégalais qu'on a trouvé sur place il vivra, il vivra, il sera avec nous. Le président Ousmane Sonko. Oh, oh, hey. le convoi est là. Le convoi La confrontation. La confrontation eh, war ko. ñu ngi noonu. ba tey yaa ngi gaa ngi gaase. ñu loxo ñu daw ñu daw. Hausa kuma ba diskar da ba waaw ñu ngi coupé live bi ñëwaat ñu ngi coupé live bi ñëwaat il faut ñu c'est pas grave, c'est live. gars ñu ngi coupé live bi ba doon rendre le convoi allah jaa ngeen jëf ci kanam.